asalaamaaleykum warahmatullah mbokk internet yi ñu suivre ci luttetv.com tey nag su ngeen gisee ki jàkkaarloo di ngeen ah, si champion bu di la nuyu di bañ sant yàlla julli sant dañuy gërëm suñu ñaari waajur rek di gërëm suñu papa moo bu baax baax di gërëm suñu staff école bi yi si kaw ba suuf moo faram ba si kaw di gërëm suñu président bi Pate si la Tafa Ndiaye Tafa Mbaye école de lutte mbër ñëpp ah, ñu ngi leen bëgg ak l'homme fort sama gaañ buuba sama xarit sama doom xam nga sama waa yi si ginnaaw xam nga dara ko waaw waaw man la entraîné damay am xaalis fay su ma amul xaalis du ma fay dara billaahi wallaahi taalaahi kon ma leen sant bu baax ma ñëwaat ñu assisté entraînement yi waa ñu bàyyi seen lépp assisté entraînement yi ñu lay sant di bu baax a baax waaw man fii laa juddoo Guédiawaye laa juddoo Guédiawaye laa yoroo Guédiawaye laa dëkk ba léegi nii waaw lan waaw amul rek ndax man boobu boobu maa liggéey yarax laa doon liggéey te doon pinsa ma liggéey am xaalis am 2000 génn si tefes bi noonu géej jëraaw bi teg kenn ma ma daan bëri kenn ma école de li ma forom bi yàggul mujjee ñëw si école bi benn du la romb ma kaay ñëw si école bi ma ñëw xam nga est-ce que bëri di fooyee nii non loolu soo ne Sakho Dior numéro 2 nga wax ak Balla Gaye numéro 2 ñun ñaañu ma man sa supporter la man supporter Balla Gaye laa bokk ak Sakho Dior waaw ñu sama supporter jàpp nga ban de sport euh, xam ay 2008 wala ay 2007 ndax Balla Gaye ba ñuy bëree moom Modou Lô mel tax ay laa dugg si làmb waaw waaw 2010 laa dugg si làmb waaw la ci bëggoon nañu xam nit avec frappe ñaata combat ngi si bëre la bëre. quatorze combat. quatorze la am quoi. neuf victoire mas niil moo bëri quoi daa mas Farouz. Sakho Dior boo ñaax ma bëri avant grand combat Farouz dañoo mas niil ma ñëw mas niil ak kii tamit général Fass deux fois. temps itam ñu gis la da ngaa mm-hmm. mm-hmm. neex leen ci làmb di affaire mu non loolu xam nga ñun kese suñu kese eggul ay 20 millions eggul 30 millions doo taxaw di xaar benn combat man dama ma maar combat sinon léegi mënutul nekk léegi xam nga lu wax mënutul nekk léegi loolu moo tax ñu dem so di xaar chaque année nga benn combat ay nit yaakaar la si yeneen famille ay nit a baax ñu am ay nit war ma toog di xaar benn combat te su ma génn si samay morom la samay morom ñoo fa nekk moo ma dàqul bëri dàquma bëri moo tax ma dem si lamb ji lamb ji si àll bi ku wóorul sa bopp doo fa dem man maa wóorul sa bopp moo ji may bu baax daaw huit tournant laa jël daaw huit tournant laa jël daal ay mbër ay champion ay mbër xam ne dañu leen di bu baax mbëri finalu laa jël ordinateur bu ñëwee fii kam réer kese moo koy daan dafa jël ba doyal seen dëkk laa fekk dama koy yoon parce que dër suuf si àll bi ak ñeneen ak ñeneen Cheikh Yane ñaar fii la ñëw tournant bu ñu teg moo ko jël dama ko musi bi dama koy yoon parce que dër suuf man nag

damay damay yaakaar ba ñëw jàppale daan la su may bëri cent personnes soo gisee ñu Pamba day may ay wet wala day may wër du may wër man cent personnes laay bëri man nu ma neex laay bëri su may bëri nu ma neex laay bëri moo tax quoi léegi da ngay di gaañ Pamba day may fekk maywul damaa bëri damaa tàmm bëri noonu cent personnes laay bëri moo tax faaloo ma bëri si dara léegi fekk la géejawaay su ma la laaj si diggante mbëri nekk géejawaay hmm. ñu xam leen ci làmb ji hmm. relation bi naka la demee waaw man xam du ma tudd du ma ñëwum géejawaay géejawaay laa mujjee ñëw sax man aw ma sans intérêt man maa nekk man seul mbër boo xam ne aw ma sans intérêt fenn man fu ma neex laa dugg fu ma neex laa taal sama loxo amul sans intérêt benn mbër mbëri ma bëril ak mbëri ma bëril lépp sama pare li seek lañ seek jàmm lañ seek sama pare école yëpp laay contact géej bu la rek amee combat may woo samay doomu ndey samay morom mbër su ma amee combat dañuy sonn amee combat ñoom damay sonn si ñoom bu baax a baax a baax waaw ñun géej la ñun ñoo bokk ndey ñun ñoo wax baay kenn mënuñu xaajale prince nag ay heure la mënuñu ay te am na nit ñoo xam ne ay benn nopp la dañuy wax kii ñu dégg mais ñun ñëpp man amu sa intérêt kenn muy Sakho Dior Gouye Gui Mbaye Tine ñëpp samay samay nit lañ li ma yéene sama bopp laa la yéene man man ma ne am combat nga ñàkk am combat ñu ma yërëm mbër ma toog ma ne yàlla mbër yëpp teg lamb waaw kon daa may nit yoo loolu fële fekk fële bàyyi na quoi fële nga fekk lamb ak coowaan mbëru bañ wax bay ba nga bàyyi lamb man sax damay dégg ay wax yu kenn dérangé wu xam ne lu la bokkoon wala Pambaay fa la nekkoon ma yëg sax mais dama si xuloo ma sàmm xuloo ma dem dama xam ne lamb ak coow ñaan am na mbër yoo xam ne ñu ngi si lamb ji kenn tuddul leen kenn lijjantiwul leen ñaata mbër nekk si lamb ji ay mbër mag laa kenn déggoo télé bëri mbër laa leen wala journaliste na leen laa man maa ngi sant yàlla baax journal mënul génn lu mat une semaine génn ma si ñett wala ñeenti yoon wa Balla Gaye mënul wax tere wala kii mënul wax mënul wax te Pambaay xam nga la Bekaay Mbaye noonu keneen keneen noonu kon damay sant yàlla na wax a bëri loolu laa bëgg wax ji a bëri booy moo def lii booy ko ñett nit dox kenn lijjantiwul xam nga yow bàyyil bëri mbër nga war a dox foo turé nit ñi la li ngay bëggee gars yi man am loolu ko maa ngi sant baax a waaw ginnaaw gis nañ lu war a hmm. hmm. yi li ma la waxoon li laay wax rek mbëri bëgguñu mbëru am gàllaaj bëgguñu mbër mën a bëre bëgguñu mbëru sawar bëgguñu bu të te man loolu dafa ne sama a të ak tamit ba àll bi ngay nekk di bëre gars yi dañuy ragal ko man àll bi li ma bëri ñoom bekkaay mbay jël nañ ko maa la caaram drapeau ñu jaaxal gars yi loolu moo tax gars yi ñaan booy bi duñu moom waaye chaque jour mais kuñ dem ga ba nga d'accord nga sama maam nee na baaxul ak sama nijaay nee na baaxul bëri bëri na mbëri ñu ma sama génération yëpp wuli de wuli de Fallou Ndiaye mos na ko woon mën ko ba bëri Pambaay ah maam Balla Noori kii dox na suñu combat mille fois ba mu nekk équipe ba dafa doon toog ba mu laaj fu mu taxaw di laaj naan Pambaay la soxla suñu doxee avance ba mu jël ko mu delloo avance bi nongoloo premier nongoloo dafa doon tëgg fu mu taxaw nongoloo premier combat aranam maa mu daan ñëw ba si manama barki Seydina ma yow laa Pambaay lii damaa bëgg mu dee ko moom mu ñëw ba si manama Pambaay yow laa roy da a bëri laa ji yaas dàq bëri yow laa mu daana deuxième combat de mu toog ne Pambaay la soxla a bu leen mer dama ñaan yàlla li li am Balla Gaye tamit ñu la fi nekkoon ko nii rek ay mbëri ko doon moom ñeneen loolu mooy lamb moo përi ñaa maagi moom loolu wax nañ bañ am xool am leen wax moo nañ dem ñu xool saa yi. daaw ñu gis la nga diggaat. waaw nga diggaatee hmm. ñu hmm. jël ragal moom mu mu dama koy jël ndax man xale laa li ma waxoon laa dañ maa yaakaar du ma toog ay deux ans trois ans yu bëri loolu baaxul si làmb xoolal mbëri ko def mbëri toog ay deux ans bëri ñu xool dañuy perte sa làmb dañoo perte de perte perte adversaire seen ñoo rëmbal la ñeen nañu dañoo def yooyu nga xaaral booy ñëw si kaw pour nga xaar loolu dafa métti si làmb moo tax moo tax moom mu ñëwee ma jël ko waaw te bu jël soog dama am blessure waa loolu noonu wóor na Seydina tamit nit yëgul dama ñëw entraînement du ma daan kenn sama sëriñ moo doon métti bu baax a baax maag sox bi la gars yi dañoo doon tax nañ dara daan kenn billaahi ma ne laa koy asi nii sox ko daanu man daan te fii ba ñu bëriwaate fii ba ay at bu ñu bëree ma daan déggoo mi la dama kaa dàq bëri mun ko te léegi di léegi